الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحابته الكرام ومن تبعهم واتبع باحسان الى يوم الدين mbokki jullit yi ñuy saxoo di ñu baaxoo di déglu ak di topp ci adciyatu ayaamu ramadaana wa nawafiluha naafile yaa ngi ci aju ñu ngi ànd ak yéen ci naafile di jour ci seen bisab ñeenteel muy guddik ñeenteel moom nag dangay julli ñeenti ràkk ràkk bu nekk nga jàng ca faatixatul kitaab ba jeex nga daldi ca teg suratul qul yaa ayyuhal na muy suratul na nga jàng qul yaa ayyuhal kaafiruuna laa abudu ma taabuduuna wala antum abiduna ma abudu ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين نيت يون غاي جانغ نونو غوكاي نافلا با ام نينت راكا موي نياري سلمال غا دادي سلمال توك جانغ نيان غي دي بغا اللهم قويني فيه على اقامه امرك واوزعني اداء شكرك بكرمك واحفظني بحفظك وسترك يا ابصر الناظرين loolu mooy ñaan nga yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp nangu ñu sunu jaamu yàlla in uridu ila al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu